doon sëy gis nañu euh, vidéo bi nga xam ne demoon nañ jëli ko euh, ñu amoon ci ay retour ba ci famille bi sax am na ci kenn koo xam ne jotoon nañu woo mais liñ ko waxoon moom moo di bu bëggee mu démentir na ñëw ubbi nañ ko ay bunt mais xawa euh, bi loolu passé jokkoo nañu démb mu nekk bi depuis que mu def vidéo bi dafay am ay xoqatal ay menaces yoo xam ne mu ngi daal ci kawam wu jëm bi àndoon ak frère ñëwoon këram bañ jotoon ci jàppante ba gendarmerie ak police amoon ci yoon kooku moo ko porté woon plainte mais comme yoroon na ay vidéo yu doon firndeel ni ñoom ñoo ñëwoon këram agressé ko ba tojoon vitre yi bi ñu demee coow li mujjul woon fen mais Moustapha bi mu doon tudd ci coow li mu doon nekk frère ci këram bi décédé di mort moo ko porté waat cette fois ci plainte euh, DIC mu di division des investigations criminelles ñu oolu ko démb nag convoqué ko li nga xam ne moom moo di ajjuma ndax nee na dafa def li nga xam ne moom moo di diffamation ci vidéo bi nga xam ne moom la jëloon fii Seneweb dañ kaa convoqué. waaw dañ kaa convoqué kan lañ ko convoqué. vendredi la war a wuy ji. dafa loo bëgg ñu wax si nag ñun nii. dafa lu ñu la def loo ñu bañee. lan la quoi lan lan mooy sa problème ak ñun. maanaam bon kaa dañ koy toog ah dafa mhm. waa lii info la. joxe na ko. waaw pas de commenté. daa mun <laughs> dañ ko moom. <laughs> wax dëgg yàlla àjjuma lay wuy ji. Ah. bu lëndee nga wax ñu nu mu mujjee. <laughs> Ah, yàlla baax na na waay. fii du fee de nee naa leen fii ngay toog di wax sa xalaat di wax lu la neex. fee loo xam rek nga fa mais que jullit Ahmed en tant que jullit bu nekkee li wax dëgg tant que jullit comment. ngay waxee en tant que jullit. alalu jirim yoon dina gisé loolu doom day. bu fekkoon bu fekkoon en tant imaam bi la ñuy woo. la woo imaam bi. dig la jëm la grande foofu noonu. te mën naa nekk occasion ci moom peut-être. mu demee foofu waaw mu leeral. waaw bu dul moom. alhamdulilah. bu dee moom. Mm. yoon xool nu muy demee moom xam nga. gis nga njaboot bi daa commencé gën a màgg nga recommencé. waaw waaw waaw on a beaucoup plus de <laughs> surtout au niveau du quartier. donc am na yoo xam ne mënatuñ ko daal. ah léegi nañ wax si beneen bés bi rek. man man wax dëgg yàlla mënumaa dem te mënuma leen a seeti. Ah. waaw waxal ci leneen. te mënoo ñëw bàyyi ñu dem non non mu ngi ci loxoy dig waxal ci leneen. <laughs> donc aywa ah, Moussa dig dina seere kaar. Ah, kaar bi ñuy waxtaanee donc yaakaar